a ah, maki na def sal sal naka yitte yi bàyyaan ci jam rek naka njaboot gi ba ah, naka Mariem nu mu def ba mi ci jàmm rek naka ñoom Amadou ma yow ana Amadou nu def ak biir bi walai ngi ci régime ba ah wallaay Achim ne ko la góor du rëy góor du yeah. Amadou sal walai Achib moo xorom rek Macky am nga une minute sa tax am nga <laughs> wallaay Achib merci beaucoup ah maki, yóbbante àq la kii nag day ndaw lu dëkk pikin, moo ma bind bataaxal wax ma problème am nee na ma kat moom ba mu bàyyi ba ci ak agressé toll na ci ñetti at ak sàcc daal toll na ci ñetti at nee na mu gor góorgóorlu ba jënd jakartaawam di góorgóorlu di libre di doxi course di def ay yenn ci ci pota jakarta ñu koy fay muy dajale as lëf di yóbbu këram <laughs> boobaak léegi toll na ci ñaari at waaw waaye nee na fii ne nii ñaara man ñetti ñetti option la am te faaw yow rek yëpp yaa ko ci mën a dimbali benn bi mooy nee na lum liggéey mook pëlise yee koy bokk ci mbedd mi benn bi pëli pëlise yi ñoo koy bëgg a rey beneen bi ci des mooy esaas saa konte dund gu metti gi mi ba fekk kër gi waaw nee na benn option bi mooy nga dimbali ko ci loolu nga dimbali recadrer sa pëlise yii astafurlah maa ngi tooñ sax naan policier sa ñu maanaam takk takk borom tenue borom tenue yi ci mbedd yi policier ak gendarmerie ak ñoom it seen ñii arrêté gone yi di leen nangu seen weccit bu ñu leen arrêté di leen raket nee na nga dimbali leen ci ñooñu nga recadré leen ñu bàyyi la ñu liggéey seen liggéey li ñu am yóbbu kër ga. ñaare bi des mooy soit boo ko defut mën naa dellu ci agression ga ak sàcc ga wala mu jël gaal yi. te nee na ma moom bu jëlee gaal gi da ngay am lu da ngay am lu la neex ndax mën naa dee ci géej gi boobaa doo maanaam yow du du la wàññi dara waaye dellu ca agression ga ak sàcc moo gën a yomb ci moom bu fekkee ne yëf yi nii muy doxee nii lay doxee ba tey nee day dellu ci agression ga ak sàcc ga te boobaa lépp loo xam ne dal na ci nit loo xam ne si lu bon def na nit lu bon wala mu nangu alalu jàmbor bu boobaa yow mi danga ci am de responsabilité nii la ma ko gën a gi waxee liaay ma ne woon nag li mu wax moom duma ko questionné moom delluwaat ci sàcc ak dara waru koo jaral nit ci àdduna jël gaal yet dara waru koo jaral nit ci àdduna waaye lii nga xam ne man mën naa ko cee participer mooy Macky Sall réew mi yaa ko jiite gone gi li wax bàyyi ko xel benn option la choisir man nga def ko mooy nga dimbali ko ci loolu mu wax nga recadrer ñooñu force de l'ordre yooyu taxaw di leen di leen racket di leen arrêté izara arrêté nangu seen bi ak tamit nga wàññi essence bi ak dund gi pour que nit ñi mën a des ci réew mi nekk ci jàmm waaw góor Macky Sall walaay Achim <laughs> waaye yow ma ko dimanche di ñëw bu fekkee togg na malah mbalax na ma invité dégg nga waaw góor bu ma invité wee sulox mbalax dimanche dinaa ñëw dégg nga day waaw góor Sall <laughs> walaay Achim Macky Sall rek